moo te déglu rajo nga xew la nii lan ngay sëngéem nii waaw dama déglu information ci Zik FM pour lan annonce bi waaw kon yow gëmoo ne kii yow dina ñëwaat ci kër gi kon gëmoo loolu waaw nu muy ñëwee yow nan lay ñëwee kon gëmoo ne almaan fu mu dem moom bàyyi boppam yow yow rek yow rek la almaan bi dugg ci biir kër gi ah pour yow ma nekk ma di ko seet waaye Alima dimbali ma waaye ak Kine Sarr yow tamit almaa mi laa soxlaa dégg maa ngi leen di kontaanee. jërëjëf voilà Amadou Diop fii réew bi may xaar ñu waxal la suy baax ñuy bàyyi ba ma gaañ. bàyyi ma teel koo wax rek. man de boo gaawul ci almaam yi léegi ma gaañu ma ne. ci baax kii naan man say yi lay wax di xaaral ma ñu waxal lu ko réew bi booy xaar say baax ñu bàyyi ba nga gaañ ñu naan ay. ku baax la ku mënoon reetaan. waaye ma wax ko nii. mais Alima nag bëri nga wax yow tamit lii lan la. mën naa laa laaj ba pare xanaa da ngay saw la li ngay bàcc bëri na ko. su ko la jiyee ah, ñu ànd wëri ji ko. waaw xam dinaa ci am information ko gis wala ko dégg. waaw. jàllale na ko ba pare kay damay xam damay bëgg a xam ba xam ndax dégg na ko wala déet mën cee woote aussi. ma xam fii jaar biñ ko dee wëri fan la ñuy jaar jàllale nañ ko allo. allo waaw madame. waaw. maa ngi fi sëñ bi. ah bu doon déglu léegi si gerte. Ah. ci doon def benn annonce joxe numéro bii nii. Mhm. mais yaakaar naa ne xale boobu noonu. waaw moo nekk sa buntu place nii parce que suba léegi mu ngi fi doon toog. ah. waaw. nan nga ko tudd almaami. almaami la tudd waa almaami la tudd waa.